sëñ bi ñu ngi si waaw ñu ngi lay siyaar bu sëñ bi tey nekk première juma après màggal ñu bëggoon la laaj ban yëg-yëg nga am. waaw yëg bu kawe ndax euh, euh, màggal gi daa fu dal muy guddik ajuma di jeudi waaw guddik ajuma gaa yi yëkkati xasida yi mu diis gan ñu war koo wàccee ci ajuma ji julli maasaale ko daw génn moo tax lépp lu jàppoon dañ koy bàyyi. ba may ñëw sama oto daa ci autoroute bi. mais dama ko fa bàyyi barki sëriñ Touba ni màggali rek waaw moom moo tax faaw ma julli jumaa ba pare xool lu may def pour tegu yoonu dakaar bi. waaw ah, dañu am kontaante bu baax a baax di sant sëriñ Mountakha Mbacké ñaanal ko yàlla si mbooloo yàgg fi lool te wér. yëg-yëg am mooy sant yàlla gërëm Moustapha bu baax a baax sëriñ Touba ndax lii yombul ndax naaj bu tàng bi nga bàyyi sa lépp jaante pour ñëw teewee julli si àjjuma. loolu ak sant yàlla képp la waaw sant yàlla képp la yëg-yëg boobu rek lañ ci am sant yàlla rek. waaw taw fexe rek ñu ngi sant yàlla bu baax affaire bi moom macha allah am nañu yëg-yëg bu baax sant nañu yàlla bu baax a baax ndax lii nii boo gisee rek xam ni taw feex la quoi tàng na trop mais dara Serigne Touba jar nañu lu ne waaw ñu Serigne Touba jar nañu lu ne moo tax ñu jaayante lu metti mel ñu fas yéene fexe ba ñëw ba julli si ajuma waaw. xanaa sant sëñ bi rek sëñ bi jar na lu ne man nag taalibe sëñ Babacar laa waaye sax màggal damay ñëw màggal ndax xam naa ne néeg bi benn la suñu xalifa bi ñu leen di ñaanal ñu gudd fan ak wer ñu gudd fan ak gudd fan ñi ci topp ak sëñ Bass moom nekk sama xalifa Malick bi tiwaawoon di sëñ Babacar si malik maa ngi koy ñaanal mooy sama xalifa waaye man sak màggal damay ñëw màggal kontaan bég Touba rek beg tiwaawoon bég Touba kër gi benn la waaw mbokki internet RTV Dakar lii mooy li leen indiloon ci grand édition Magal Touba 2022 di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm parce que boobu ba léegi gis nañ ne yéen a ngi ànd ñun de près ou de loin yéen a ngi ñuy envoyé ay message di ñu envoyé ay a di ñu waaw mbokki internet RTV Dakar lii mooy li ñu leen indiloon ci grand édition Magal Touba 2022 ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal parce que boobu ba léegi gis nañ ne yéen a ngi ñuy envoyé ay message de près ou de loin waaye tamit yéen a ngi aimé di suivre di ñu envoyé ay commentaire ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig